Oh, hocam. Sağ olun. Thank you. xam nañ ne am nga naxar waaye yërëm bu te jéggal ko yàlla xaar ko àjjana ñu denc ko ba pare nag fekk fekk kenn koo xam ne dootu ko présenté muy Assane Diouf ci pas-pas ci bi di la masaw di la jàllil kooku sa diggante ak Mamadou Atassaye bi nga xam ne moom lañ denc léegi. waaw mais wax naa man samay kàddu warul bari parce que ma sama rakk Sankara Mbaye Sankara moo tax ma xam Mamadou yàlla def. bi ñu xamanteeg léegi matul sax ñaari weer ndax Sankara moomu moomu ñëw fekk ma sama liggéeykaay na ma grand bi dafa la bëgg a gis parce bi nga jógee Amérique bu léegi dafa am pas-pasu gis la mu mënul fexe ba gis la moom bi ma nekkoon dama laa Assane sama mag la rek dafa profité ne il mu ñëw jël si ma pour yóbbu ma ci moom bi ñu demee ñu waxtaan waxtaan bu am solo bu jëm ci wàllu réew mi xama yàlla def xama cofeel dugg sama diggante moom waaw ba defe naa gi mujj ci wér gi yaramam man ak moom ak euh, Omaro ak Sankara Mbaye ak beneen influenceur bu ñuy wax Souleymane ñoo nekkandoo këram ba presque ay deux heures du matin di waxtaan ci naka la ñuy def pour élection yeeg affaire yooyu moo tax démb ma woowee ne ma dafa génn àdduna wallahi defuma lu dul tiit parce que li moo tax képp ku yeewoo senegal rek war ngaa jiital senegal balaa ngay jiital sa bopp te man loolu moo ma tiital fi mu toll nii parce que parce que ñu dëgër rek parce que métti na mais ko ku ko ku ko waxoon ne ko élection yi du la fekk élection yi du la fekk suñu guddi gi mm-hmm. wallahi du ko gëm mm-hmm. moo tax maa ngi koy ñaanal yàlla xare ko àjjana di ko ñaanal njabootam pare di ñaan Sénégal ñu yéenante jàmm daal parce que nit ku baax la woon boo xamante ni boo ko jegewul doo ko xam te yéene bi mu amoon ci Sénégal ñu waxtaane ko bërki démb ci guddi wallahi tax na man maanaam bëggatuma dara lu ñaaw sama diggante ak doomu aadama mën na nañoo toog ne lu ko doon jariñ la mhm. wala luy jariñ waa këram mhm. mais luy jariñ Sénégal jeunesse bi loolu rek la ñu waxtaanee guddi gi yëpp man moom Omaro ak Sankara ak Souleymane moo tax na ko yàlla yërëm. mu mel ne ku dee bàyyi mbébét kon bàyyi na mbébét yoo xam ne yow am nga ci ay preuve bàyyi na bàyyi na loolu moo ma tiital daal. Mhm. parce que nit ku nekk booy dund ba am nga ay projet. nit ku nekk am na loo xamante ni moom ngay yéene sa askan moom nga yéene sa njaboot mm-hmm. xam nga te mbëbët yooyu man xaw ma ci lenn leneen lu ma ci wax lu dul li mu mujjee mbëbët mm-hmm. pour Sénégal la wallahi damay fen loolu moo ma tiital. ñu jëm ci élection yan message ngay wax ñu xam ni yàgg-yàgg fi leen mujj. nañu jubluwaat ci Sénégal man nañu jubluwaat ci Sénégal suba rek wax naa ko ci sama live maa ngi wax ne. Sénégal Senghor jaar na fi ba dem te kenn tojul kër kenn kenn taalul kër kenn Abdou Diouf jaar na fi ba dem kenn tojul kër kenn kenn taalul kër kenn Abdoulaye Wade noonu Macky Sall noonu kon bëgg a yor am réew bu tax bu mu tax kenn kenn ci biir senegal mu jaral la say nit di dogale ay nit di leen dóor wala ñu leen di saaga wala leneen senegalu jàmm ba pare parce que buñ la joxee réew mi te amoo waa réew mi jàmm munoo fee taxawal jàmm loolu laay ñaan képp koo xamante ni xam nga yaa ngi sàkku réew mi pour Sénégal am jàmm loolu rek laa doon. lay saa ñu dem. àjjana. àjjana xaalis bi ma mujjee forcé jox ma ko barki sëñ Fallou mi ngi nii ba léegi laalu ma ko xaalis moom moo ma forcé dama jënd ko essence bi ñuy jógee bi ñuy jógee billaahi wallaahi mu ngi nii sama sama carnet bon essence laa ko def comprendre nga li ma wax ba léegi nii jotumaa sax utiliser xaalis bi Sankara woo ma ne ma yëg nga nouvelle bi loolu moom ma tiital te wóoruma ndax dinaa egg sama kër wala ñun ñu fi toog moo tax lu rafet rek pour Sénégal parce que defe naa li ñuy xeex yëpp pour jéem a jëmmal Sénégal yàlla na ko yàlla xare àjjana taxawu njabootam taxawu Sénégal te yóbbu ko ci àjjana ya gën a kawe xam nga ci barki Seydina Mohamed jërë ngeen jëfa ah. Sénégal yëpp ko nettalu tey muy Mamadou Yaxasaay hmm. suñu borom ko fi yóbbu ko ci këram ko mucc waaw dañuy dañuy sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax inna lillahi wa mënuñu lu dul sant rek di di baaluwaat nit ñi bu baax leen baal di ñaan suñu borom boo leen jégal mooy li ma wax chaque jour rek nañ fokkante nañ bëggante nañ nawante ndax lépp ci ay gunge rek lay mujjee ah nan nan nan nan gën a defaraat toogaay waaye Fall balaa ñu ñëw gunge. Mm-hmm. barki maam Sara Fall. dëgg la dem yéen ñaar seen diggante. waaw mais comme lépp rek comme diggante yëpp rek man suñu borom dama maa dimbale doomu adama yëpp laa yemale mooy li ma séq yow laa séq ak Samba mi séq ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen du yi pareil ah donte mën nañ bañ a demalante wala ñuy diggalante mais fu ñu gis dinañ sekk jàmm ka foore ba ku ci ne sa heure jot nga dem neccil say ite waaw laps de temps bu ñuy sekk lépp war na ci mën rafet loolu rek laa sekk ñëpp waaw si amuma kenn xaar ma yàlla. Ndiogu Ndiogu ñu lay ziare. waaw man ziar naa leen maa leen di fay ba maa leen di bëggee maa leen di bëggee bu baax waay. di la ko jaale ak Mamadou Diatta Saay. jërëjëf nangu jaay. Euh, sa diggante ak Yaki dem waaw mooy mooy mooy diggante grand ak rakam diggante Ndiaye ak jarbaatam rek di ku baax wax dëgg yàlla. Mhm. comme ni ko ñëpp waxee quoi. grand bu disponible man mi sama clip sëñ Fallou yaa ngi sam soo këram laa ko tourné. Mhm. te kon loolu. disponibilité moo koy maye quoi. grand bu baax bu bëgg ay njabootam aussi. Mhm. yàlla ko yàlla xare àjjana. Mhm. yàlla bu ko cat topp daal. amiin et njaboot gi fi des yàlla leen yàlla sàmm. amiin ñi ko ñëwal ñëpp yàlla leen yàlla fay yiw. ak ñi bëggoon ñëw ak ñi ñëwul ñëpp. amiin waaw yéen ñaar yan kàddu ngeen mujj a déggante grand ah grand nag li doon waxtaan bari na de. Mhm. waaw li ci ëpp nag waxtaanu giir la. waaw yàlla na ko yàlla xaare àjjana. barke Seydina Muhammad te lii la ñëpp bàyyi xel ne adduna léppay jeex léppay jeex mm. yaa ngeen jëf affaire rek